bonsoir asalaamaaleykum sama gars yi j'espère que yéen a ngi si jàmm man it maa ngi si jàmm dal leen a jàmm seen chaîne Like Mobile votre chaîne de technologie tey vidéo bi vidéo spéciale la bu jëm si fi phone box à chaque fois dañu daan demander man dama yor sama benn wifi mais damay toog ba mu yàgg ma gis ne plusieurs personnes ña ngi si connecté te dugal leen si te xaw ma naka laay def ba génn leen tey dama lay wax naka ngay def ba limité sa wifi Finbox ba nga xam ne képp koo xam ne yow dugaloo ko sa biir wifi Finbox bi moom doo am accès pour connecter si sans plus tarder ñu lay demande bu fekkee ne bi mooy première fois bi ngi doog dugg si suñu chaîne Laye Mobile nga bës si bouton abonné bi daal di aimer vidéo bi partage ko activer cloche de notification bi loolu dina la euh, yombal vidéo boo xam ne dugal nañ ko rek yow di nga bokk si ñu koy njëkk a gis te dinañu jàppale si liggéey bi ñu baax tamit. nga seetaan bido bi jusqu'à la fin bul si raté dara pour nga xam lépp lu xew si biir bi ak lu ajoo si biir vidéo boobu yow da nga yor sa benn wifi nga toog ba mu yàgg plusieurs personnes di se connecte maanaam nga toog ba yàgg rek maam scanner nañ ko wala dajji nañ code wifi yow xamoon naka ngay def ba retirer leen tey dama lay wax naka ngay def ba képp koo xam ne ma ngi connecté sa biir wifi bi maanaam fekk maanaam képp koo xam ne rek joxu ko accès pour mu connecter si sa wifi yow Funbox dootu si mën dóor si mën a connecté euh, bi nag disponible na si euh, Livebox disponible si Funbox pour ñi nga xam ne euh, yoru yoruñu Funbox bi. léegi première fois bi ñuy def mooy da ngay dem sa navigateur navigateur Google baax na wala Google Chrome kon ko ñun Google Chrome lañ ëpp lu ñu utiliser. moo tax dañuy jël Google mais yow mais bu fekkee ne euh, amoo euh, bu fekkee ne yow bee nga ëpp la utiliser rek wala bee nga fe euh, Google nga gën a mun nga koo defee Google. code site bi ñu waaj dem disponible fépp moo xam Google Chrome wala Google léegi ñun naka la ñuy def mooy dañuy dem directement suñu góogul Chrome voilà léegi ñun a xool suñu Google Chrome léegi ñu cliquer ko. ñu leen ñaan ngeen seetaan vidéo bi jusqu'à bul si dara pour nga xam lépp loo ndax li tax loolu loolu maanaam benn partie boo xam ne sotti nga ko si rek maanaam dina am partie boo xam ne raw na la si moo tax ñu leen ñaan ngeen seetaan vidéo bi jeex léegi boo duggee sa Google Chrome da ngay tàppe bi muy 192 point 168 point 1 point 1 yaakaar naa suñu vidéo bi passé ñi nga xam ñi nga xam ne daan nañ ko euh, nag nga xaar mu tëjee ko léegi bu tëjee ko fii la lay dañ leen wax maam dalay laaj noo dudul sa dër laaj la mot de passe léegi après dañ dem si suñu ginnaaw wifi bi maanaam suñu modem wifi bi wan leen lan mooy noo dudul sa dër ak lan mooy mot de passe voilà léegi ñu dem si wiifi bi wan leen léegi bu dee da nga dugg sa modem wifi sa ginnaaw boo xoolee si ginnaaw ma ngi leen dil user admin mu defal la user admin maanaam mooy noo dudul certain mot de passe bi bu fekkee ne wifi bi ba ba ko Sonatel indee ba tey changé gun ko mot de bi lii lay doon mooy lii ma leen ma leen tegal euh, flèche voila léegi nag bu fekkee ne yow danga nga ko bu fekkee ne Sonatel da ko changé changé bi lan la mooy day doon admin maa benn admin lay doon yëpp minuscule wal mu doon admin admin voilà bu fekkee ne changé gun ko mot boobu si si ginnaaw lay doon wal mu doon admin admin loolu moo lay dugal si sa mot de passe wifi fun léegi ñun naka lañuy def mooy day dugal suñu nom d'utilisateur waroon lañ leen ko sànq nom d'utilisateur boo demee sa ko mooy user admin voilà boo xoolee sa ginnaaw modem fii rek euh, di nga ko fa mën a trouver léegi naka lay def mooy day dugal suñu nom d'utilisateur bi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw wifi nom d'utilisateur nag moom bu la ko orange détecté euh, parfois mën nga ko changer mais parfois tamit euh, bu la nee tam mën nga ko bañ changer li sam importance mooy mot bi léegi ñun Euh, suñu noo d'utilisateur euh, bi bi ñu bi bi ñu wutee suñu wifi bi maanaam changé wuñ ko voilà léegi nag mot de bi changé nañ ko moo tax euh, boo duggee rek noo d'utilisateur bi maa ngi def user admin voilà léegi ñu def suñu nom d'utilisateur léegi ñu dem tapé suñu nom d'utilisateur wifi box léegi buñ ko tapé pare léegi day dem si mot de léegi mot de bi comme que ñun dañoo changé suñu mot de passe ba pare léegi yow mot bi nga xam ne changé nga ko moom nga si dugal voilà léegi bu fekkee ne yow da nga bëgg changé sa mot de passe admin wala nga bëgg a masquer sa wifi admin lien premier bi nekk maam lien yi nekk premier lien bi euh, bi nekk suuf discussion bi boo cliquer dina la yóbbu naka ngay def ba masquer sa wifi bi deuxième bi moo lay wax naka ngay def ba changer sa euh, sa sa mot de passe admin nga xam ne euh, moom ngay moom ngeen jàkkaarloo voilà léegi nag. ñun naka lay def mooy day dugal suñu mot de passe comme que ñun changé nañ mot bi nga xam ne moom la ñu orange defaloon si suñu wifi bi léegi day dugal suñu mot de passe léegi boo dugalee sa mot de bu jàllee rek automatiquement passe bi mooy tijjee ko maanaam yow léegi am nga accès si sa wifi phone box voilà fekk ko ba passe bi tijjee ko rek xamal yow amagoo accès mais bu tijjee ko xamal am nga accès si sa wifi phone box bi léegi léegi ñun naka lay def bu leen fàtte ne tamit. vidéo bi lan la mooy naka la ñuy def ba créer benn list boo xam ne képp koo xam ne rek bëgguñu nga connecté suñu vidéo se connecté vidéo bi loolu la. voilà léegi naka ngay def mooy da ngay dem fi mu la bindal réseau local boo xoolee mooy troisième option bi nekk si kaw réseau local léegi nga cliqué ko léegi boo cliqué fi mu la bindal réseau local léegi da ngay dem fi la bindal WLAN mooy W L A N voilà voilà. léegi boo xoolee si euh, à gauche am na fa mu la bindal Wilane mooy W L A N léegi da nga koy cliquer léegi boo cliquer Wilane léegi page bi mooy tijjeeku léegi da ngay zoomaat nga dem fi mu la bindal avancé Wilane mooy avancé W L A N du du voilà <coughs> avancé Wilane voilà léegi nga cliquer ko léegi boo cliquer page bi mooy tijjeeku léegi ñun dañoo. maam dañoo limité suñu Wi-Fi Funbox ba pare moo tax léegi euh, voilà dañ leen woon bu fekkee ne maam limité goo ko maam autor autorisé goo personnes yi nga xam ne ñoom ñoo si correct naka lay mel léegi euh, voilà léegi xaaral ñu dindi ko wan leen bu fekkee ne yow sa wi bi maanaam dafa si dara maanaam limité goo ko naka lay mel léegi da ngay ñëw fekk mu taxaw fi mu taxaw si première option yëpp. day day day day range nekk bula voilà muy pas de filtre yëpp foofu lay taxaw bu fekkee ne sa wifi bi dafa gun ko dara boo duggee fii ñu lay wax da nga gis ne lii lépp noo la mel léegi yow naka ngay def mooy boo xoolee suuf am na fi mu bindal contrôle d'accès rule voilà léegi voilà léegi ñun naka lañu def léegi nag da ngay ñëw am na fi mu bindal pas de filtre deuxième mu defal la liste black léegi troisième option mu defal list liste blanche voilà léegi après dina ñëw si liste blanche bi voilà léegi nag boo demee contrôle d' accès contrôle d' de configuration da nga gis ne ñun personnes yi nga xam ne ñooy konoog suñu bi moom la leen directel noonu comme que ñun dañ koy def ba pare moo tax dañu koy directel mais yow bu fekkee ne yow sa wifi bi limité gooko wala autorisé gooko personnes yi nga xam ne ñoo si connecté boo duggee moom da lay indil contrôle d' accès rule de configuration léegi moo indi la euh, moo la. ajouter un niveau élément wala créer un niveau élément léegi ñun naka lañu def mooy dañ koy yóbbu da ngay ñëw fekk mu taxaw si pas de filtre bi léegi yow da nga koy yóbbu si liste blanche bi muy première option bi nekk si kaw list blanche bi léegi nag am na wi fi yoo xam ne euh, voilà si des option bi ko koy yóbbu mais tot mais liste ëpp nag moom si premier option bi lay taxaw muy liste balance bi voilà même bu fekkee ne da nga ko yóbbu si lis balance bi nga pare xool ne sa wifi bi maam limité gun ko da ngay ñëw changé ko si deuxième option bi c' est la même chose rek ñoo mais ma leen di conseil li si ëpp importance maam maam li si ëpp loo xam ne wifi yi euh, liste balance bi bi nekk si kaw moom la ëpp lu muy jël voilà léegi boo ko yóbbee si lis balance bi léegi ñun naka lay def am na fi mu la bindal appliqué mais nag bul bësoogoon appliqué c' est parce que boo bësee appliqué yow si jëmmi boppam dootoo am accès suivi ba si correct moo tax ma leen conseil boo defee liste balance bul bësoogoon appliqué léegi naka ngay def boo xoolee suuf am na fi mu la bindal créer un nouveau élément comme ñun dañoo créer personnes yi nga xam ne ñoo si connecté ba pare moo tax moo tax euh, créer un nouveau élément bi day nekk suuf mais bu fekkee ne personnes yi nga xam ne ñoo si connecté kenn duggagut si maam duggalagoo kenn si bi maanaam créer un nouvel élément bi moom day nekk si kaw léegi boobu bësee créer un nouvel élément léegi ma ngi lay laaj adresse MAC léegi ñoo leen créer un nouvel élément léegi créer un nouvel élément boo ko cliquer voilà léegi ñu cliquer créer un nouvel élément moom dalay lay laaj adresse MAC maanaam li mu la laaj mooy nga dugal adresse mag léegi dañuy dem génn wan leen lan mooy adresse mag ak naka ngay def ba trouver ko si sa téléphone. voilà léegi day génn directement dem si suñu paramètre wan leen lan mooy adresse MAC ak naka ngay def ba trouver ko si bépp téléphone voilà léegi dañuy génn dem directement suñu paramètre léegi ñu dem suñu paramètre voilà léegi suñu paramètre bi tëjee léegi première option bi ngay def mooy da ngay dem si barre de bi mooy gën a gaaw léegi boo demee si barre de recherche bi tapel trois mots yi rek voilà mooy MAC voilà léegi boo tapé mag muy MAC voilà automatiquement moom dala koy détecté indi la adresse mag nga cliqué ko ko voilà disponible si bépp téléphone léegi adresse mag mooy lan boo duggee si première option yi dernière option yi nekk suuf mu ngi la bindal adresse mag léegi bi nga xam ne mooy nekk suuf muy D0 1 euh, boobu noonu loolu mooy sa adresse Mac bu dee tel adresse Mac yi ne du bokk bii day adresse Mac day nekk bi bii adresse Mac nekk comme ni Peace Orange. parfois da gis puces orange yu bëri bii nekk 77 800 euh, bii nekk 77 600 comme exemple rek la leen jox comme noonu la mel adresse mag mën na bari mais benn du si bokk ak moromam voilà léegi boo trouvé adresse mag bi léegi nag euh, nag ngay def mooy day demaat direct suñu wi funbox pour mën a dugal adresse mag bi voilà léegi ñu dugal suñu adresse mag voilà léegi ñu dugal suñu adresse mag ma leen di waxaat di leen conseil adresse mag bi nga xam ne. yow instant bi yaa ngi doog a créer exemple yaa ngi doog a créer sa wifi phone box bi adresse MAC bii nga xam ne yaa ngi koy dugal boo si defee quelques heures rek ba bës appliqué te yow ni nga dugal adresse MAC normalut day indi problème parce que yow dootoo ma ne connecté si wifi bi maanaam yow day mel ne yow wifi bi dañ la say dañ la say limité dootoo si mën a connecté moo tax ma leen wax ne da ngay def boo boo ko dugalee ba pare taxawal 3 minutes. wala 4 minutes yoo xam ne danga nga koy vérifier ba xam normal la wala normal bala ngaa bës appliqué c'est parce que boo bës appliqué rek yow dootoo mën a connecté si si wifi phone box bi voilà léegi ñu dugal suñu adresse MAC lii li ñu def nii mooy mooy dañ koy maam suñu adresse MAC bi maam dafa fekk ñu xam ko mais bu fekkee ne xamagoo ko li si gën a wóor wutal benn big ak feuille nga notte ko niñ ko bindee après nga ñëw tegaat ko si voilà nga ñëw nga nga lépp nga nga nga ko si yaakaar naa boobu mooy gën a wóor léegi def nañ ba pare nañ vérifier ba xam noonu la wala nekkul noonu voilà léegi adresse bi nga xam ne moom lañ dugal voilà léegi noonu la léegi naka lay def mooy day bës fi ñu bindal appliqué non non avant ñu bës appliqué euh, bu la neexee tamit ki nga xam ne yaa ngi dugal adresse magam am mën nga def nga bind turam voilà comme si que yow boo deewoon ba nga xam ne tonga ki nga xam ne dugal nga ko maanaam yow mu am lu la def wala nga bëgg koo génne suivi bi. turam da ngay xool nga laaj di koy supprimer si wifi bi nga xam ne dootu si mën a connecté léegi ñun dugal nañ suñu adresse mag dañuy bind suñu tur muy like voilà léegi bu ñu ba toog ba bëgg a génne like dañuy xool turam si personnes yi ñu laaj ba supprimer daal di koy génne si suñu wifi bi léegi bu ñu ba si appliqué léegi like dugg na si liste bi léegi nag pareegul ndax yow liste euh, maam liste balance yi nga xam ne da ko créé woon. bësoo ko appliqué voilà fekk bësoo appliqué nag installation wifi bi maanaam nekkagut en sécurité maanaam ku ku neex rek mën na koo pirate voilà léegi nag nag ngay def boo créé boo boo boo ñëwee si liste blanche nga ajouté nga nga nga nga ajouté euh, liste ba pare léegi da ngay bës fi mu ne bindal appliqué voilà léegi pas de filtre la nekkoon nga ñëw andi ko si liste blanche mooy première option bi leen waxoon léegi bës nañ appliqué ba pare léegi nag wifi bi kenn dootu ko mën a pirater sans ñun ñu dugal ko. léegi nag sa wifi bi képp koo xam ne yow pour mu connecté si léegi dootu si mën a connecté même bu fekkee ne dafa ñëw mu xool xam mot de passe bi wala yow nga dem jox ko mot bi même bu ko dugalee doo du si mën a connecté fekk dugaloo ko si liste yi nga xam ne programme ko boo pare léegi ñun sànq ban personne lañ leen dugal muy like voilà léegi bu ñu xoolee like may nii si liste yi nga xam ne. programme yi nañ ko voilà léegi ma ngi si léegi joxaat na ko voilà léegi yéen a koy gisaroo like léegi ñun buñ demoon ba toog ba nga xam ne like dañ koo bëgg a supprimer si suñu Wi-Fi fun box naka lañ def mooy boo xoolee si euh, maam maam à droite am na flèche yu mu lay defal supprimer voilà ay logo supprimer yu mu lay defal léegi yow da nga xoolum yàgg nga gis benn personne boo xam ne maanaam da nga ko bëgg a supprimer si Wi-Fi bi léegi da ngay bës supprimer léegi nga ñëw bés fil bi dal appliqué si suuf léegi boobu sa appliqué ki nga xam ne supprime nga ko léegi moom day deñ si wifi bi léegi nag moom bu fekkee ne da nga ko bëgg dugalaat da ñëw dugalaat ko niveau adresse magam fi nga xam ne foofu nga ko programme dugal ko fi léegi mu doog am am accès si wifi bi daal si doog ko connecté voilà léegi boo supprimer nga bës appliqué léegi nag euh, voilà parfois nag sa wifi wifi bi day day day dagg ba xam day da lay détecté ba xam yow sa bës nga supprimer wala bu fekkee ne yow supprimer sa bos léegi nag voilà mu laa waat léegi nag yaakaar vidéo bi dina leen intéressé pour ñi nga xam ne day yor seen bi ba pare am personnes yi nga xam ne day ñëw connecté si voilà nu ma ko mën a tuddee rek connecté si par euh, connecté ne dinaa si connecté force léegi nag yow bu fekkee ne bëgg nga kenn dootuma ma connecté si wifi bi saa nga dugal ko si yaakaar naa astuce bi boo ko jëlaatee nga essayer nga def ko sa téléphone wala nga def ko kenn dootul mën peut-être si bi abadan à la prochaine